bul fadu wasqal jalam sadani bul fadu bamba ci dunya maka sa pokol jakende raw na say gët mi ngi lay gis tadaaw leen setaan di jàkkande dem na si gët li ki lay gis daa leen boo ko faate mu faate faate bi war nga footol faf ko dem waxtaane say mbir war nga footol

فاتبعوني وأحببكم بذرة الحمران فاتبعوني على ما دلجك فاتبعوني بكل سورة الحمران أنا جقبان أمري منكم بكرر تنقادم يرفض عرض النسوان منكم بقرير هيتنغاد صارت النسان أدقوا وابدقوا إلي الويلان dem ci yàlla am kerkeraane wasila wasila wasila wasila balanga Guna Bamba Sama sang ya mo Utu siya Sama Syekhuna Bamba Sama sang ya mo Utu siya Sama Syekhuna Bamba Sama sang ya mo Utu siya Sama Syekhuna Bamba Sama sang ya mo Utu siya Sama Syekhuna Bamba Sama sang ya mo alxuraan ku jug taxaw ca kaw màggal Seexuna Bamba yàlla na nga ñëwaat déwén ci barkeb Sëñ Bamba jug leen jukkal Seexuna Bamba lépp moom la jug leen màggal Sëñ Bamba jar na ko jug leen màggal Sëñ Bamba jot nan ba ngir mi ñu xaloon yaa ko déggal Usmaane xaloon jàngo dekkal ga Cheikh Ahmadou yaa fi daaway nen ba yaa dunu kambun yaa weddal loo ak azaane waaye dunu kambun dunu kambun yaa weddal loo kontu baay haa fi daani ci gaayu baay fi daani yaa fi yor mbooti ahmad al adnaane waa ci gaayu baay di maalik yi li xawsu yaa di seen sultaan nu nga yimbo ci gaayu baax yi fi nekkoon yaay danay seex Ahmadu Tijaani kon yaay dana sayko Ahmadu Tijaan bala ay doon ngay mbo ci kunti yoo ke xalifa yaay dana Abdul Xaadir Jilaani waa ci kunti yoo ke xalifa yaay dana Abdul Xaadir Jilaani ngay mbo xutbul xamdin ya daali doon ngay mboor hadik maane abdil ya daale ya daale ya daale doon ngay mboor ci Mbàkke ak ci bu soobe yaa di lamp bi daa ak Sudan waa ci Mbàkke yàlla ya dul fer wala taataan fu du ca kaw saranaan

mos nga aajo na ndollen ke ko mosal dootu mos lu bay nooraane aajo na ndollen aajo na ndollen Tuba yaa du ndarooyi yaa nu sukkandiku jëm budul kon yow tambale nu ki dem ni raane borom Tuuba ndoxum gëm borom Tuuba ndoxum gëm borom Tuuba budul kon yow dadi dem ni raane ni raane ni raane القنية ددي دمني يا كاري جامي تجي أكلك فن القنية كوي ددي دمني جيران كوي ددي دمني جيران يا رجع راجي خليانو تربو kon biyaa ak ñoom tam nasaraan be garagi koliyanu terebe koliyanu agno gama nasaran be Ahmadu jarada konniyam akman yaman sara Cheikh Ahmad ya seexal kan nga ni ñépp ngi lay rol yo tublu ab dal fo mbaxaane seexal way kan nga ni ngi lay roy yo tublu ab dal fo mbaxaane borom Tuuba yaa nu wammat wammat muriidinu àndoon kay nu tàggaleeg saytaane wammat muriidinu àndoon yaa dimbar yaa nu tàggaleeg borom Tuuba yaa nu tàllal sa tënk sotti daa di géeju ngëneel gi dunu rootaane ma dundun yaa di yëlla Seexu Ibra Faati ci say ak jiita ko fi di waan daaru borom daaru du yàlla Seexu Ibra faati ci say maa ko jiital ko fi diwaan borom daaro du yàlla Seexu Ibra faati anta barke bu jabal Seexu Ahmad ibnu Saïd ngëm gu ànd dëggal ba am ridwaane Seexu Ahmad mandumbe ba Seex mandumbe ngëm gu ànd dëggal ba bal ay yaa jabal Seexu Ibra Lamp bu dul fay yaa ko wan yoon ca dex gam naa ne Seexu Ibra la kamp bu dul fay yaa ko daan dex gam naa ne yaa saxal Seexu Abdu Daarul Alim jox ko mbootam buy jàng fil Quraan حليم yaa jëfal lampi diine gaaya fa tuuba mu ci daari salaam ak manaane ak manaane ak manaane gile daari salaami ak gile tuuba وفاتوتي الدار بجناني لدار سلامي يا مسيخ amay ma fat ba may way yaa ma te dox di mbal di saf sampaane waay ta may ma badu ba may waay yaa ma te dox dimbal dimbal bi saf safa Mbakke yaa ma te gàddu jàkk tàkk yanu tan yaa ma te gàddu mbalak tal samaan yaa ma te gàddu jàkk tàkk yanu tan yaa ma te bakk Bamba yow addi ceeb waaju la bayran bu la góobe gërëm gënduñ xaraan waaju la bayran ren bu la góobe gërëm gënduñ xaraan Mbakke jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal Mbakke jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal Mbakke jërëjëf Seex Bamba yaa mata àndal Mbakke kula am ñàkk bay ñettaane Ahmadu borom yaa dimbali jaani yaram jaani la am ñàkk bay ñetela dootu ñàkk bay la ay ta bamba de ay de gol ko bafar de adafal yàlla la santaana رديان ويا دفع المصطفى الحسية النون يد خير الخديم في ديوانه دفع المصطفى الحسية النون يد خير الخديم في yow gërëm loo nga yàlla ca gërëm loo ko jiyoon walaay gërëm loo nga yàlla ca gërëm loo nga jiyoon walaay suba ba gis mu day jëm ah, ah, suba ba Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima la buga sibo dey je sibo ba Cheikh Ibrahima Fall ba Cheikh Rafa Ibrahima jàmbar ja Seex Ibrahima Faal dani del janoon Seex Ibra am nga ngërëm Seex Ibrahima Faal dani del janoon kuy bëgg Cheikh Rafal jugal màggal Cheikh Ibra Fall waay del màggal Sidi Ibrahima Fall jar na ko jaara ma Cheikh Rafal